ñun Mbàkke dafa am loo xam ni parfois dañu koy bàkkee mhm. soo waxee ñu ne jeunesse Mbàkke ay ragal lañ mhm. ay ragal lañ parce que dañ naan dëkk bi ni muy doxee mhm. euh, képp ku ñëw rek mairie Mbàkke mooy lu ma la wax depuis indépendance ba léegi amul dara lu soppi Mbàkke benn tali laa fa fàttaliku benn tali boo xam ne i bëggee moo fa def à part tali boobu amul leneen te tali bi un kilomètre la kon nga xam ni dara soppeekul Mbacke euh, maire ba fa nekk moom li ma la wax rek lu mu la wax lu dul sama nopp yi gudd na waxu la dëgg. <laughs> yaa ngi tooñ Abdou Mbacke Ndaw de. non tooñu ma parce que parce que. man ñu bari dañ naan mi ngi liggéey Mbacke de. mi ngi liggéey xam nga ku toog 5 ans 5 ans. <laughs> bañ ne la élection mi ngi waaj a ñëwaat amul lenn loo mën a teg sa loxo ne lii maa ko def Mbacke <laughs> mais kooku bu ñu ma liggéey nga da jaaxal na ma foofu moom liggéey mënu faa. moo tax nga bëgg a fippu nekk ci parti euh, jéngu Ah, mhm. fas ñu daal defar non man li je wax rek xam nga defar façon parce que man li may wax ñun ni ñu opposé woo. Mhm. tey président Boucar Camara daf ne mhm tey tekki tekkam boobu jaaxal bari parce que ñun ñi opposé ak xeyna opposés di opposé nous ñun opposé dañ parti au pouvoir tek na programme bi ci éducation ñun ñene dañuy programme bi ci éducation tek na programme bi ci santé ñun dañuy tek programme bi ci santé ñun opposé parce que aussi nit qui opposé wu Sénégal tamit ngay xol lo xamni boko défé parti au pouvoir dina xol ci sax fonctionnement ñun ci parti pouvoir bi dara non mom dama muy mairie muy état amul fa dara defuñu ko fa dara dara dara la preuve tey boo ñëwee école euh, sëñ Moustapha mhm. jëm noonu ci kaw tey Mbàkke ak Touba warootoo laal fenn ñu naan la amul courant ak ndox mhm, mhm. loolu moom c'est anormal dëkk bu mel ni Mbàkke ak Touba warootoo laal fenn ñu naan la amul ndox te loolu yaakaar na ci maire bi war na ci jouer benn rôle bu déterminant mais lan lañ lay wax maire bi daal comme ni ma la wax rek ñoom daal ñu ngi noonu Abdou Mbàkke Ndaw daal du ko mere nag ci benn côté parce que au moins bàyyi na dara pour dara mhm. maanaam tey comme ni ma la bàyyi na moodu moodoom mhm. pour ñëw piye Mbàkke mhm. maanaam dafa dafa bàyyi dara pour ses propres intérêts te tey mi ngi koy réussir kuwam moo tax man munuma ko wax dara ah, parce que bi muy def loolu ñun aussi dañu toogoon dañu toogoon kenn nanguwul wax après moom tamit loolu ñun dañu mel ni Euh, tey man parfois damay toog sama biir néeg ma mere sama ma mere sama bopp. Mhm. parce que je me dis que tey Abdou Mbacke Ndao li mu nekk fii di def Mbacke mais ñun ñoo ko may. Mhm. parce que tey bu ñu jugoon xëy na dina am lu ñu ci changé. Mhm. te tey ñun ci démarche boobu lañ nekk. parce que man je peux pas comprendre tey lu ci mel ni coupe maire. coupe maire pendant deux ans Abdou Mbacke Ndao nee na moom du dugg ci stade bi. nga ne yow yaay meeru dëkk bi munoo dugg ci stade <laughs> loolu moom bon je sais nee na stade bi dafa jàkkaarloog ay armeer armeer yi dafa am ñu fa nekk du fa dugg mais lolu Abdou Mbacké da fu mu teg loolu te tey waxatuma yow do dugg ci stade d'accord mais yow maire nga mais au moins sax nga def yabal délégation wala yu mel non. mais subvention sax jamono ji ni ay sey amatuñ ko hmm. ay sey amatuñ ben subvention waaw man nak affaire bi man daf ma daf ma xaw jaaxal man dal Abdou Mbacké en plus aussi mm-hmm. day créer ay chantier xam nga mairie pour nga pour nga lekk xaalis il faut nga créer sànc mhm. maam day ñëw ne fii kat dama fiy tabax mairie comme li mu ñu naxee ci mairie bële. Mhm. gaa yi ne waaw mu ñëw gars yi voté budget bi génneel ko xaalis bi mu ñëw dem jënd zeng bu zengee ba pare wàcc fa benn jalu suuf mhm. bàyyi ko fa waaw jalu suuf bi mu fa wàcc mairie yee koy tibb nii di ci saaf gerte <laughs>